asalaamaaleykum wa rahmatullah waa sëriñ Baara ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar yi tey yéen a ngi ci jàmm naka jaboot yi ñëpp a ngi si jàmm waa sa garab yi da moom am na solo torop torop torop vraiment bi ma koy commencé di jël ak léegi daal wax dëgg yàlla maa ngi sentir ne lu am solo la wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yow torop sëñ Baara ñu ngi kontaan ci yow di la gën a bàyyee suñu bopp daal jërëjëf sëñ Baara. hépatite B nag nekk na feebar bi nga xam ni wax dëgg yàlla organisme bii di OMS wax na ni trente pour cent population mondiale am nañ ko fii ci Sénégal sax daf fee bari lool ba ay nit ñoo jël ñaar ñett ñu nekk rek ñoo ngi koy jàmbat hépatite B nag virus la virus la bi nga xam ni dafay dugg ci organisme doomu aadama di ko yàq kon hépatite B bu ko nit amee rek na jàpp ni moom mooy ndayu cancer ndax hépatite B bokk na ci luy jur cancer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

am na ci nga xamante ni nag c'est héréditaire seen ay maam wala seen wayjur bu góor wala seen wayjur bu jigéen da leen koy wàll ndax maladie la bi nga xamante ni c'est trop héréditaire day dugg ci famille bu déggee dugg na ci famille bu mel noonu nga gis ni sa ndey da ko amoon mu yóbbu ko sa amoon ko mu yóbbu ko sa frère am ko mu yóbbu ko kon kon kooku kooku kooku jarul ngay toog ñu naan la ay trois mois ñëwal six mois ñëwal nga yeew benn jour ñu la dugg na cancer dootoo ko mën a kenn dootu la mën a faj ku dalay nax parce que dafa am taux bi nga xamante ne bu fa xasee ba egg cancer direct cirrhose du foie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 maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi ñaanal sëriñ bi lépp li ma waroon wax sax sama borom kër gi wax na ko sëriñ bi daal ndax man ba ma ba may ñëw sonn naa lool mënuma woon dara fu dee def naa ko analyse walla daal yàlla daal daal di ko wanaleeg sama borom kër gi ba ko wanaleeg sama borom kër gi yàlla def mu daal di ma faj ci laa jóge nii daal di tane li ma waroon wax yépp sax sama borom kër wax na ko maa maa